kon tey lamb ji daal lamb la ku daal jërëjëf jërëjëf mu mel ni ñu ngi ci biir en ñu ngi ci biir géew bi arbitre bi soufflé na génn seen diggante gënee na 35 minutes diggante Laye Gothé ak Laye Pythagore doxalal ñu dem waaw mu mel ni Laye Gothé Laye Pythagore lewtoo bi dagg na gàtt na lool waaye du mujje foofu Laye Gothé ngi tojal benn morceau bu bu la ci ginnaaw mu ngi ngemboo ngemb lu weex waaye sooy xool ci poids da nga naan lay Pythagore moo sàcc tuuti poids waaye est ce que doole ji noonu la demee ndax ku xool ci Modou Anta Diop ak soxor gële nga xam ne poids bi du doole ji lan la moo war xew ci diggante ñaari ñaari laay yi. buñ leen ko laajalee bu combat bi weesoo da nga naan la c'était le 10 décembre 2023 ci la ñëwoo ci Ndiaw Macodou Diop borom gañaay tey 21 heures 37 minutes. ci la ñu wëlbatu ko ñoom ñaar di léewtoo kurpeñ demagul laay gootoo ngi puus di dem waaye laay pitagoro koy xool ci biir bët doxalal ñu dem waaw mu mel ni lay goote sànni na benn droite laay pitagore sànni benn gauche mu mel ni tey jii laay goote daa mel daa bëgg a diriger combat bi lan moo war a xew est-ce que Laye Gothé fi mu nekk nii la est-ce que du ne waat teg est-ce que mën na koo bañ a profité. waaw looloo war que warut a def ndànk fi mu nekk nii. looloo war a am mu bëgg a profité bi lu tax respecté wu round d'observation bi loolu yëpp ci làmb la ñuy wax waaye am na neen loo xam ne da nga jox jër calculer ñi la indi calculer ci sa biir gox la calculer ci sa région la joxal waa ji jër xool fi nga jaar parce que mosu leen a daje doxalal ñu dem waaw mu mel ni ñoom ñaar mosu ñoo daje waaye mu mel ni Laye wàcc bi muy wàcc ak laay go taxaw bi mu taxaw am na lu muy joué parce que laay côté est-ce que du daa bëgg dem ci kaw laay Pythagore waaye laay Pythagore jàppante bi la bëgg. Alioune bu demee lan la fay fekk looloo ma jaaxal est-ce nekk xam na lu mu fay fekk na ko testé xool. waaw daf ko gis nga gis nga gis nga li ma lay wax gis nga est-ce que ko arrangé bu combat bi ñëwee ñu jaaraat yoon nag bu ñu dellu see jaar yoon. test bi ñëw na bu ñu dellu see mu lu ñu bëre laay gote waaw. waaw mu mel ni bi muy génn daa waroon daw latéralement daa waroon daw latéralement li nga waxoon rek moo ci nekk laay gote la jox avertissement laay gote la jox avertissement. laay gote boo am avertissement ne tey lu ko combat bi lu tax mu bëgg koo asaaloo lu tax mu bëgg a jaay combat bi na def ndànk fu mu nekk dara yàkkamti wu fi bëree wu ñu sax cinq minutes. na def ndànk ci combat bi teg ko ci temps calculer tànkam bu jógee lan lay def parce que laay Pythagore dafa mën a xeex tey moom dafa mën a xeex kon na xool lan moo ko arrangé noo wéq boobu jegewu ko parce que loolu da mel ni kuy sulli loo suul. daa am lu mu fexas daa am lu muy fexas ci kanamam waaw fi mu nekk ñu ngi ñëw laay laay goote di nga dagg léew di nga dagg léewtoo bi laay goote daggal léewtoo bi dagg na ko dégg nay kàddu. ay dagg géddu waaw loolu laa d'accord fi mu nekk waaw kay. wàcc di xool lan lay def réaction laay Pythagore lan la parce que réaction bi léegi ñëw na léegi na seet neneen loo xam ne ko waaye ki muy taseel fu mu nekk dafa bokk ci écrit bu mag moom it muy écrit Rock Énergie waaw mu mel ni laay go laay goote laay Pythagore laay goote bokk écrit Thiès Mbooloo laay Pythagore bokk Rock Énergie kii Franc indi ko kii Modou Anta indi ko mu nekk ñaari grand champion yoo xamante ni ah laay goote laay Pythagore ñu nekk ci biir di dawal ñu war a lu war a le 10 décembre ci champ de course ci di jaxate tëgg journée bi dikk indi ko mu journée bu taaru macha allah service d'ordre bi doy supporter yëpp ñëw massivement père Baba lan ngay wax ci combat bi. combat bi fu mu nekk nii ñu ngi koy teggagum ci temps laay bu mu génnee ba pare bu mu dellu see xam naa coach am est très normal teg na ko ci temps parce que laay goote fu mu nekk Thiès gu bëri daf koo kii dafay buuraale Thiès waaye day bërewaale Modou Anta muy lu am solo tey. fi mu nekk boo gisee fi mu nekk nii ñoom ñaar laay ngi gën a seere lan lay seere fi mu nekk laay laay fi mu laay Pythagore ko bëgg a topp waaye fi mu nekk jeu laay gote moo gën a féete xale. mais mu mel ni tamit laay gote mooy diriger combat bi. parce que laay laay Pythagore defagul dara booy gis ci bi danga naan laay gote mooy dox laay gote mooy diriger. waaw waaw fi mu nekk nii boo calculer fi mu nekk nii. laay goote li mu bëgg dafa am lu muy tànt li muy tànte ameegu ko fi mu nekk waaye bu mu ko yàkkamt li muy tànte yëpp dafa am lu muy xool mais comme que laay laay Pythagore day mbër mu mag yàgg ci ah, euh, làmb yàgg ci géew moo tax moom war na xool bu baax a baax li muy def ba xam ne fi muy jaar parce que laay takk bi dana ko amal solo waaye ki muy takk yi na xam fi muy jaar pour mën koo takk. Laye Pythagore li mu bëgg mooy jàpp Laye Gothé Laye li mu bëgg mooy jàpp Laye Gothé Laye Pythagore jàpp Laye Gothé la Laye Pythagore bëgg. waaw parce que Laye Gothé dem na mais matul àggul bi muy rocceeku ci kaw Laye Pythagore yónnee benn fi mu nekk yónnee boobu du ko arrangé parce que moom day mën a dëggal boppam xeex mu xeex wala moom. su fekkee xeex bi arrangé ko mu calculer def benn retour saa yu demee mu def benn retrait tuuti pour bañ ko kurbeñ bi dal ko parce que laay Gothé quoi qu'on dise mooy loxo bi macha allah gudd nañ mais laay Pythagore ni mu taxawee laay li mu mën mooy déplacé loo ko latéralement ba mer loo ko moom laa ko wax foog ne fu mu nekk moo tax ma ne ko bul yàkkam ci bu fekkee daa taxaw ci aksam di ko touché couche droit heure bu coup bi ñëwee bu jëloog moom mën na koo dóor mu mais tey fi mu nekk nii amul benn yoon boo xam ne fu mu nekk laay war na mën a wëlbatu ko tey ah, ne sàmm bu baax a baax ay ay tànkam moom laay laay laay goote il faut mu sàmm parce que dem na sànq ci tànku laay Pythagore yi automatiquement mu génn génn boobu kurpeñ bi mën na ko mais bu demee ne àgg nga xam ne du mën a génn pour mu dóor ko. pour mu bii mu nekk nii la war a jóge. daa war a tourner féete na leen. waaw fu mu nekk ne fu mu nekk. waaw waaw laay laay waaw na ko xëcc mu ñëw. boole ko ci boole ko ci combat bi waaw bu dee ñëw nga def benn recul retour benn def retour daan calculer la ngay bëreen moom waaw parce que fi mu nekk gis nga non non non waaw laay laay non non laay matul àggul lii lay bañ lii lay bañ laay góor lii laay bañ lii laay bañ laay lii laay bañ lii laay day àgg wala mu bàyyi laay góor day àgg wala mu baax waaw. parce que si ah. mu mel ni tey jii. mu mel ni tey jii. mu mel ni tey jii. c'est li baaxul. mu mel ni tey lii baaxul. Laye Gothé. Thiès gépp a ngi sa ginnaaw. Laye Gothé. xoolal li ngay bëree. Ah, xoolal fi ngay teg sa tànk. baaba. dar baaba mu mel nii. lamb ji ni mu amee. dafa mel ni lamb bi soxor kele. la ma leen waxoon ni lamb bi soxor kele moo daan ta moo nar a dàq la grand ni loolu moo fi am. mais moo fi nekk. laay lu muy kenn sant ko lii. bëre bu minable laa fi gis. baaxul laa lii bala muy xam ne baaxul rek mooy yàlla tere mu gisee ci leneen lii baaxul. yàlla moom mu am waaye daal dinaa la wax ñaar lamb ji xëy neex parce que ñaari songam yëpp benn baaxu ci song yi benn àggu ci yu àggul nag def retrait mu topp ko yëpp yoo boo gisee da koy fekk daal di koy mos ba mu génn géew. entraîné ba ñëpp xam ne entraîné na waaye da war a boole. ak béré béré bi mu ko war a boole mooy mu taxaw la wara juggé da wara déplacer wu jëm na lé da di koy wëraat ndomba sax sét nan lay am fële. mais lamb non la kay cubbikaay changé kay jëm bo bopp cubbikaay lan moo la tere dox. mais lolu coach bi ko toogal sees moo ko war a wax. ne jege na ñaari coup buñ ko ko tegalee. day yaakaar day génn saako waaw waaw ba xamee ba am ay kii. lan la ñuy wax daal di dagg sa xaalis ba pare xañ la victoire. ba pare nga kaas daal di ne ah, waruñu maa dagg. non non non non il faut mu bëre. soo gisee laay Pythagore chaque jour mu ngi taf laay goote ci kaw saako yi. waaw pour mu génn saako yi. parce que loolu pexey franc la. Ah, ah. franc noonu la ñu franc lay franc. moo juróom da fekk ci biir. daw gëstu la nga daw daf mu képp la ci flan moom fi mu nekk jàppante moo ko arrangé laay. maanaam Rock Énergie. waaw ñooy bëree façon bii. moo tax moom comme nga xam ne loolu. ne wëlbatu ko jàppante. mais loolu pexe coach la. waaw pexe coach la wala ku xam làmb. ah day ko. mbër laay laay koy sant ak waaye coach mooy lijjanti ah, combat. waaw mooy moo koy lijjanti. ne am solo la ban dafa am solo. ba dafa am solo. te ku perte yi muy gën amul njëriñ c'est bon bu dalee ñaari pas bu dalee ñaari pas rek day génn c'est bon fu mu nekk nii laay d'accord ma ba léegi d'accord gu ma de ba léegi d'accord gu ma bëre laay d'accord ma ci waaw bëre laay d'accord ma ci bëre bi neexuma bëre bi neexuma laay. mu mel ni combat bi. laay Pythagore laay li muy encaissé waaw mais mu mel ni. àggal àggal bul bàyyi àggal. mu mel ni laay Pythagore li mooy jàpp waaye laay Gothé jàpp la koy xañ te mu mel ni mu mel ni tey booy seetlu diggante laay Gothé laay Pythagore. waaw loolu am. waaye nag ba tey ba tey accord boobu lay bañ parce que bu ko ndengeñ ñoon rek lamb ji jeex na ko te bu ñoon laay Pythagore rek lamb ji jeex dafa nekk waaw kay waaye ndengeñ ko yomb de koy jaar day rasu waaw heure boo ko mu rasu lii mu indi ngemb li mu ngemboo soo ko xoolee xam ni la ma loo indi diggante moom ak Ama Baldé waaye da ngay xam bañ ko ko tax mu def tax mu def waaw mu mel ni cinq yi jeex na ñu jamaat ci kanam waaye tey su ma na Mame Sa dinaa ko xamal ni na déplacé wu jóge bi mu nekk te dem beneen secteur. Oh, daf ko war a wër am nu mu def fi mu nekk nii laay Pythagore laay oh xoola combat bi xoola xoolal mu nekk nii. laay boote non non laay laay non laay non laay ni muy doore sax yëkkati ci kaw du dóor mën na door sax ci bopp gaañu. song yi yi baaxul baaxul. parce que dafa war a jam na jam ñu xam ne mu ngi jam a ah, na jam ñu xam ne mu ngi jam fi mu nekk nii laay Pythagore oh, ah an dañ dem ba ci kanam waaye laay ah, laay laay ngi ah fi mu nekk daal gisaguma fi mu nekk gisaguma daal gisaguma Thiès daal daa soxla ndam Père Baba hmm. Thiès daal ñu dañoo soxla ndam tey soxla nañu ndam parce que tey wax dëgg yàlla surtout ñu andi la fu mel nii laay te fu mu nekk nii dafa war a dem Dakar war na bëre ji Dakar tey il faut mu mu pour le fii pour wane laay Pythagore ñëw nga sama dëkk tey def naa la parce que moom xeex bi arrangé ko moom bëre bi moo ko arrangé parce que laay quoi qu'on dise dafa mën mbapat waaw laay laay goote looloo tax laay goote daa bëgg jàppante bi waaye suy jàppante saa yu songee laay Pythagore day rasu ba pare boole kak ay coup waaw il faut mu déplacer laay laay goote li waral li waral loolu mooy axe bii mu taxaw axe bii nga taxaw heure boo doxee ñaari recul boo ko defee da ngay laal saako yi mais dem leen ci milieu bi waaw il faut euh, di pousse waaw su ko defee confiance day am ah, da ngay jàpp mbër mi daa wër ko loolu day am ci làmb laay laay waaw mu mel ni tey ji ñu ngi fii ci hippodrome Ndiaw ma Codou Diop borom gañaay le 10 décembre heure bi toll ci. vingt vingt une heure. quarante trois quarante trois quarante huit. quarante huit nekk vingt deux heures moins douze moins huit moins moins douze. bon mu nekk ñu nekk ci diggante combat diggante Laye Gothé Laye Pythagore mu nekk lamb ji ñu yàgg a xaar lamb ji yàgg yoon tey yàlla dogal ko bisub tey ñu dem seen premier cinq bi ñu bëre ko. am ci ñaari song yoo xamante ne nii def nañ ko mais jurul njëriñ kon ñu soufflé waat dellusi waat fi ñu nekkoon waaye ba tey laay goote fi dem tey moo ma taneel fa mu nekkoon sànq. waaw fi mu nekk dafa bëgg a dëggal boppam xool lan lay def fi mu nekk parce que am na avertissement su ma juumul ñaari avertissement. benn benn avertissement. tey fi mu nekk nii mu bëgg a dëggal boppam est-ce que day demam déet fi mu nekk mu ngi gën a accéléré li nga xam ne mooy léewtoo bi lan lañ ko wax ba mu génnee fële. lan lañ ko wax doxal ci kawam am déet éviter xeex bi. am lan lañ ko wax loolu la si di jariñ parce que ñu doon wax sànq ma ak yow ni na jóge ci surface bii mu toog te pousse dem ci biir làmb ji yaakaar naa ni ba mu dikkee loolu la def. waaw dafa ñëw delloo si waat boppam dëggal boppam. ñëw daal di wëlbatiku. moo tax dëpp sees baaxul waaw non baaxul. baaxul dëpp sees baaxul dëpp sees ak dëpp cin yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal. fi mu nekk nii laay siggi na complètement waaye mu ngi wàccaat ndànk-ndànk waaye fi mu nekk la papa ah, waaw laay ak ki nga xam ne waa papa Sow kenn waxatu ko ci yëfu làmb waaw fi mu nekk delloosi nañ ñoom ñaar laay Pythagore ak ki nga xam mooy laay lay laay gote waaw laay eh non non laay gote boobu sori na laay gote boobu sori na laay gote boobu sori na gën a jege laay Pythagore waaw yaa ngi koy gën a jege wutal bëre bi wutal bëre bi. daa bëgg a jàpp pour daa bëgg a jàpp pour bëre. daa bëgg a jàpp pour bëre. waaw benn décor yi daa gaaw. waaw fu mu nekk laay Pythagore laay gootee ñaari laay yi daje nañ laay Pythagore laay gootee ñaari laay yi daje nañ fu mu nekk ñoom ñaar ñu ngi léew taw mu mel ni. bu lamb jeexee woon fii. Père Baba du arrangé Thiès. la ñu am. du arrangé Thiès. kon defar la ñu am tey li Laye Gothé di bëree mooy tànku pied droit wu Laye Pythagore moom la Laye Gothé soxla. la bëgg a ne coppet waaye heure bu ko nee coppet rek heure bu ko nee coppet rek. laay ko coppet. Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé Laye Gothé génn ña ngay xeex ña ngay xeex génn nañ saako. loolu mënul nekk jub. loolu mënul nekk jub. loolu mënul nekk sit sa waay sel mu ne de loolu mënul nekk sit sa waay sel mu ne de sa waay sel mu ne demal sel mu ji demal sel mu ji kees ka dem ardo demal sel mu ji ah. ardo ngi doog a liggéey ardo ngi doog a liggéey de. man de bëgguma woon Ardo liggéey tey ah ma bëggoon Ardo toog ñibbi jot mu ñibbi ñu fay ko ah déet kon du baax na boobaa ko fay na mos tuuti nag doog ah dinañ ko fay ah na mos tuuti dinañ ko fay direct ci lay bañ na mos tuuti direct ci lay bañ waaw fi mu nekk nii sepa pas méchant gis nga laay goote da nga nee di xool xeex bi baaxul ci laay goote une fois de plus xeex bi arrangé wu ko waaw xeex bi na éviter xeex bi waaye tuuti ñu damm tuuti ñu damm siège ba de ñu est-ce ñu siège ba mbaa mbaa course ba daw na wala laay goot li muy dóor moo baaxul. laay goote li ngay dóor kenn xamul am doon. xoolal xoolal laay Pythagore ni muy jamee xoolal li muy dóor baax xàcc bu jëm ca kaw nga koy gis dama lay faxas. tey. Oh. mais xaar mbay ma jaaga naa bu doon lambi jigéen sax jeex na. waaw laay gote laay dootu. góor yi da laay dootu góor ci. maanaam xeex nit dañ koy judd waale. non way way way way xeex way way walaay xeex kenn du ko jàng déedéet déedéet. xeex nit da koy judd waale. parce que laaw ci kaw ni muy def nii. xoolal xoolal sifflet baa ngi noonu waaw waaw gis nga xeex na ci kaw woo na ko ci kaw. wut si suuf si tey su fekkoon ne ci biir kii la defet la xeex dañ koy judduwaale parce que boo na boo nangul xeex gardeel sa suuf soo seetloo booy yi nekk ci suuf xeex bi ñuy xeex mbër yi nekk ci kaw sax duñ ko xeex duñ ko xeex xoola fi mu ne xoola xeexu laay goote xoola xeexu laay goote xeexu laay goote ci du bopp laay Pythagore lay dóor baaraam yi sax mën na foxat non ah waaye li ma naqari neexuma mu mel ni làmb ji li may xeeñ neexuma ah yàlla mu am li may xeeñ neexuma. yàlla bu mu am. waaw li jaadu. li xeeñ neexuma. mu daan ta jàkkaarloog rakam lim wax ñetti kàddu dëgg yi. li may xeeñ loolu jaadu. ndax laay li bëre nii. li may ah néew ma daanul Pythagore de. neexuma waaye bu ko changé woon tuuti ñu jël. d' dañoo bëre ba génn dañoo ba génn dañoo mu mel ni arbitre bi doxalaat na soufflé seen diggante laay goote laay Pythagore kenn ku nekk dina changé stratégie boo xamante ni ko bëree li mooy pied bi laay Pythagore teg moo jaaxal laay Pythagore ak ki nga xam ne mooy laay goote ñoom ñaar dellu siwaat nañ diggante laay Pythagore laay goote ñoom ñaar ñi ngay léewtoo ñoom ñaar ñi ngay léewtoo ñaar ñaar laay Pythagore ak laay goote fu nekk le làmb laaj waaw laay goote nii mu def waaw fu mu nekk ne xaw a tekk dem na a ah, ñu wax ak moom ne ko nag fu mu nekk ki ngay bëreel du cuune ci mbër te écrit ba mu jóge du fa cuune tey am na ñaari erreur yoo xam nga def nga ko tey su doon ci enceinte bi kenn waxaale ko. ba ci ñett. waaw ba ci ñett kon kon bu mu ñeent. jamais 203. am na neen noo xam ne nag naka waaw day dëggal boppam parce que tey la boot wax nga ko ak ñi ko boot ak tey li ñu soxla tey. mu am solo lool fi mu nekk ni kon am na nu mu war a comporté woo bu baax a baax a baax. waaw mu mel ni Père wax na ni laay Pythagore laay goote laay goote boot tey ji méngoo nga ak muy asaaloo lambam. la Pythagore nag lu am day jël ndax daa dugg ci dëkkub jàmm moo fekk si kon la Pythagore a ngi teew di teewlu combat bi laay bu la ko kenn dàq war ngaa toog teewlu combat bi xool li ngay def sigi taxaw jàkkaarloog moom mu déclenché ku nga jiwaloog moom ngeen bëre waaye fii ak mënoo koo wër li nga bëgg mënoo ko koo def kon filasa koy génne ci lamb ji de. bu fekkente xam nga fixé ko nii baaxul ci warul dafa war a def ay rotation daat di déplacer wu déplacement latéral. taxaw ba mu natt ko baaxul baaxul. jël na beneen kee da kee jël waaw kee jël mais ke ba léegi kii ma kii tey su arrêté woon laay laay goote day ñàkk day ñàkk arrangé wu ko arrangé wu ko. non seulement que di nga ñàkk sa xaalis CNG ba pare ñàkk sa victoire loolu baaxul tey. yaa ngi enchaîné fi yaa ngi enchaîné fi mu ne nii boo booleeg ñàkk sa xaalis ba pare am defet bu pénal lan lay jur. gis nga nag su fekkoonte ne dafa dem yàlla def ko mu daan la mu liñ ko daggoon yëpp ay supporters dem dañ ko koy may ak ay fansam kon tey moo tax fu mu nekk dafa war a bëre bëre bi fu mu nekk parce que tey lu mënta doon mooy départ am perte moom mooy so combat bi yamee fii lan la mooy avertissement lañ ma gagné avertissement lañ ma gagné ba tey. mooy li dal laay mooy li dal laay daxaar gi ak diggante ak nguur bu waaw waaw.

ñàkk def li nga war a def règlement la loi na par waxoon naa leen lamb ji di para para ji du continuer. déedéet doo déet du para du waaye lan la laay Pythagore bëgg a actionné Pythagore am na lu mu préparé lan la bëgg a actionné. li muy mooy gérer combat bi. lay Pythagore doo ci sonn de trois avertissement la lay gote am. man dama man dama dama dama xalaat ne fi mu nekk lay Pythagore mu ngi préparé combat bi bare jeexee ci li nga xam ne mooy mooy mooy euh, avertissement. dama ragal mu calculer jeexee ko bu demee ñu naan ko yow rek boodu ànd mënoo koo daan muy calculer ca loola fi mu nekk. bu ko calculer léegi mu juum. waaw fi mu nekk nii parce que dafa am fu mu jóge ñoom franc andi ko tey ak euh, fi mu nekk ñëpp di ko seetaan. tey moom mu am fu mu bëgg a yóbbuwaat ci moomam ci làmb tey su bëree nii ragal naa ne du bari combat boo xam ne nag te laay Pythagore lii du bë du warut bëre ci lii. ci boor ñoom ñaar ñëpp kenn xeexul kenn bëriwul ci ñoom ñaar ñëpp. moo tax arrangé wu làmb. waaw kenn xeexul kenn bëriwul waaw ah, ah, ah, fu mu nekk lii ñuy def nii fu mu nekk nii ah wax dëgg yàlla de. observation la rek kenn xeexul kenn bëriwul. laay man ragal naa ne combat bi bu mu jeex sax ci ci ci ay avertissement loolu de neexul ñu tagg seen biir a ah, waaye ñu jël démb def tay taf ci tay rek. waaw ci diggante combat Modou Anta Soxor Kele. waaw waaw ak yeneen premier combat yi fi jaar. waaw ndax combat bu jeexee ci noonu mu nekk ñaari combat yu jeexee ci noonu parce que diggante ndax combat tey am nay kaawoo. waaw am na ñaari kaaw combat bi. Mhm. am na ay buddi door ci suuf ñaar waaw kon loolu na combat yi lamb ji xalaatoon naan du jeexee ci benn song ndax waxoon naa la ko ñaari mbëru calcul lañu. waaw waaw ñaari mbëru calcul nag il faut kenn jël initiative. suñu bëggee il faut kenn jël. laay goote mën na koo jël. waaye laay bi daal góor doo du ko jël. waaw waaw ma laay goote moom fi mu nekk nii. waaw parce que laay goote fi mu nekk moom moo nekk ci position faible. laay Pythagore waaw. quatrième combat quatrième avertissement. deuxième des day des benn lamb ji day jeex dañuy tas combat bi. après ñu tas ko ku nekk di kaas. te kenn ku nekk ñu ngi laal sa poos. waaw laay de laay Pythagore Sow Rupaal fa mu nekk am na lu ko naqari. ah non fu mu nekk nii. non non non non non non non liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi jaaduwul fi mu nekk nii. waaw laay laay Pythagore day gérer les combats. ah waaw waxoon da koy gérer waxoon naa la da koy soo demee man ah da koy gérer fu mu nekk amatul benn effort bu mu ci def. lamb ji dañ koy coos ki war a jël ki war a jël initiative du jëlatu ko da koy gérer. lamb dañ koy coos. dañ koy coos. waaw da koy laay Pythagore da koy coos. saful neex.

57. waaw nekk lii saful neex nit ñi doyal nañ ci combat Laay Gote ak Laay Pythagore bëggoon naa nga wax ma ci ñoom ñaar fan la nga fan nga gis. mooy saful neex ñoom ñaar si lamb ji saful neex. waaw mel ni Leewtoo bi mu ngi bëgg a yàgg lii nii kat avertissement ci lamb ci grand combat nekkul lu rafet nekkul lu raisonnable nekkul lu nekk na lu ñaaw aussi mu mel ni ñaari champion kenn ku nekk indi champion mu nekk ci diggante Modou Anta indi laay Goté mu mel ni ci diggante Franc indi laay Pythagore lamb jeex na amoon lii dara gënu dara gënu koo métti ci àdduna jeex na cinquième avertissement lamb ji day tas jeex na jeex neex

waaw sama gars yi ñu ngi woon fii ci hippodrome Ndiaw le 10 décembre ci diggante Laye Gothé Laye Pythagore mu mel ni tey jii li ñu gis grand combat